xamante ni tey ñoo fi ne ñu rangé wu waat ci jikkoy mag ñii del si waat ci société bi bokkaat ci penc mi mais sëñ Omar àdduna tu bal xaw mi daan wax naan dafa alaa waaye dëgg la tey dafa alaa daw mi Moussa nag euh, comme li may wax rek papa toog leen euh, dafay loo xamante ni bi sant yàlla sunu borom rek ndax li yombul te ñii nekk ci kanam day ah man de xawma ku leen xamul waaye xam naa leen xam naa seen valeur xam naa seen niveau xam naa seen mbaax waaye xam naa seenu njub ci mag ñu toll ñoom kon Moussa euh, man li ma koy wax rek di ko encouragé mooy na sant yàlla bu baax te sant waajuram waaye nag tàggi bu ne daa am jàppal diw sama yaay jële toog di yaayam di magam di kilifaam di lépp laggalu ko pattalu ko tegu ko fenn foo xamante ni si boo gisee Moussa da nga koy xeeb man lam yaskuri naas laa yaskuri laa ku gërëmul nit doo gërëm yàlla avant ngay ñëw di toog sama ñoom papa ñii toog ñoo la jëkk a jëw sa sa sa mbaax ak yaatu goo yaatu li ci des sag mooy nañu fexe ba jikko yi nga xamante ni moom ngeen yor ñu sol ko xale yi xew man de damaa xaw mel lu xaw a tiit ndax lii ma gis nii kenn xamatul foo jëm kenn xamatul kii mooy kii loo sentir da nga koy def yàlla na ci yàlla musal yàlla nanu ci yàlla musal man de maa ngi émission guddi gi DTV fii ci benn baas mais barki Seydi Aboubacar Sy Malick lépp lu may wax ci sama àdduna valeur rek tax may wax nan la ñuy def ba récupérer waat xale yi léegi yow mbaamum ngelaw ngay doon rek ngelaw lay indi moo lay delloo foo gis ñu ni wow na rek nga ni waw na bu ne tooy na nga ni tooy na te yow xamoo fi nga jëm fu mu doon mais dañoo war a teey na mag ñi wax ak xale yi xale yi ñëw déggal mag ñi c'est très important man de maa ngi jéglu bu baax ndax kàddu yi ak fu mu mën a doon ak ku mu mën a doon ak fu mu mën a taxaw ci àdduna dañ ko war di yëkkati sama xarit sama doomu ndey sama rakk sama lépp yaa ma dalal fii ci koñ bi sa papa nga nee toog maa ngi koy wax léegi sa papa mais di gone teewul am jom mais di gone taxu teewul a yaru mais di gone loo mën a yor ci àdduna paset la rek ak xaalis day jeex barki Seydina Muhammad al baladu tayibu yaxruju nabaat euh, dañu ni suuf su baax mooy jur gàncax gu baax bu sa way jur baaxee sa ndey baax sa baay baax boo juddoo da ngay baax kenn mun laa tee baax yàlla na nga am jàmm kontaan naa ci yow trop ndax fii laa nekk ci koñ bi doxandéem laa fi nekk ak suma mag docteur Malick Sène mais su ma jaaxlee bu sama bët xonqee li ngay doon doon sama jarbaat ci yow lay ñëw yàlla na nga am jàmm comme li may wax rek valeurs yi moom du yaayaa dañ ci war di insister mais jommi woo jommi nga wula jommi woo fan yi li ngay gis jommi nga wula jommi woo moom du yaaya yow mi yor jeunesse bi laa wax waxal jommi nga de. jommi nañ moos. barki Seydina Mohamed sëñ Omar jommi nga wala jommi woo. mais lii kenn mus koo gis lan la waaw man du ma nangu kenn denc sa doom di génn sama doom damay lànk xoolal ni may wax ak yow nii dara jëy Seydi Aboubacar si Malick samay doom ay mag yi jëmm lañu ñu ngi fii di liggéey su ma leen soxlaa dañ taw na nawet bi taw na ñu nga ca àll ba dañuy bay man dugguma ci yooyu doxuma ci yooyu man dund rekk laay xool xaw ma estar xaw ma ay naa dund kenn bañ maa yërëm te dëgg la ngénte li ŋànk ko amul koo xamante ni si mënut a dem toog pale te mu kenn nga ci musta dégg ci giraaw waali sëñ Omar xam na li ma koy wax Mamadou Yaaya xam ne li ma koy wax amul kenn koo ci musta dégg ci giraaw waali te billaahi li ñuy ligganti kenn xamul nu mu toll ci àdduna kon li ma ci doon dugal lii rek mooy mag ñee toog ñu war a jël bayit ci ñoom suma ñoom bàyyi ngi nii toog ñoo xamante ni si ci kanam tuuti dañ leen di jox micro bi ñun dañuy ubbi rek ndax gis naa fi ay xar kanam yoo xam xam naa xëy na miinante yuñu waaye lu dagg moroom ma lay wuti soo xoolee da nga xam ni say say bàyyi géwal lañu wala say ndijaay géwal lañu wala say magi yi géwal lañu te benn nen kenn du ko omle danga koy mayonnaise ku ñëw ca. Mbaw. dama ni tey biis bi dafa alaa daw mi toog na ñëpp toog ñu defar ko taxawal lii na ñëpp toog ñu ko mama xajal leen ñu dama ko bëgg a defar ko dégg taxawal lii xam nga li ma bëgg soxna yi wuy ko waaw xoolal ñii ñu ngi tudd yàlla fay na ndaw léegi xam nga lan laa bëgg dama bëgg ñëpp puus Pam Moussa ak soxnaam ñu ànd ndax lii la bëgg nit ki li bëgg defal ko ko Pam Moussa ak soxna si ànd leen ñëw nii ñii lii la bëgg. xale yi léegi mënu fubale ba lu bëri ba di teg fi la waaw xoolal lii. waaye Pape Moussa mi ngi doog a reetaan ndeysaan daa daa ba sonn mel ni kuy mitin. soxna si ñëw imaam Sall ngi imaam Kiyee ngi dem lu ne wax na ko. Cheikh. comme que yàlla tamit mu doon xaar nijaayam ji dikk na. jërëjëf léegi nag. Euh, kon Pape Moussa ñëw na soxna si ñëw na ah kon xam naa ni imam dañu lay jox li nga xamante ni mooy kàddu gi imaamam fi lew na ña seen mi ngi toog kilifa yëpp a ngi fi bismillah imaam muhammad rasulullah hayya ala salaati xaya ala alsalaati xaya ala alfalaax xaya ala alfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wa ambataha nabatan xasanan allahuma jacal fi qalbiha imaana salaat allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahuma jacal fi qalbiha imaanan wa islaaman wa ixsaanan allahuma jacalha من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهما أعوذ بكلمات الله التامات لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi fi teew jëpp yàlla def na ki mu ñu ganale muy gan gi ñoo ngi ko tuddee Néné Coly Cissé. Néné Coly Cissé Néné Coly Coly Néné Coly Cissé. Coly Néné Coly Cissé. Coly Cissé Néné Coly ne ci xar mi kon nag uh, ñu ñaan yàlla. ki ne ci xar bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, gannaaw bi ñu santee yàlla julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi baalu xaq ñi fi teew ñépp te nag xaq bi suñu ay kilifa man dama fi am ay kilifa yoo xam ni ñoo ma fi téye ndax man ndongo daara laa daara jaa ngi nii ci ginnaaw ma fekk fi suma mag su may kilifa Abdoul El Hadj Aziz Fall mu ni ma toogal doo jóg ma fekk fi sama mag alxaaji Malick fay mu ni ma toogal ma fekk fi alxaaji Xaasum Diop moom it mu ni ma loolu ma fekk fi El Hadj Idrissa ma fekk fi Daouda Sow fekk fi sunu bilaal bi ki ci moom muy jàlloo ñoom nag ñooy goxu jàkka ji ñoom ñooy kilifay jàkka ji ñooy kilifay koñ bi lépp luñ fiy doxal ci wàllu diine ñoom ñoo koy taxaw su fi imaam Kawara jafe yàlla mi ma tiim xam na ni tënku naa lool ndax xale yi falaa leen bàyyi su may àgg dama leen di wàcce waaye nag ku la digal nekk sa kilifa da koy jafe ñu leen di mas gan yaatal ñoo ngi gërëm soxna Saw mooy yaayu Pa Moussa bi mu fi ñëwee ba léegi danay ñëw daara ji indi fa benn sëtam nekk fi ci taxawaay bu rafet yal naka yàlla taxaw yokk ko ndax diine mooy lépp e, ñuy gërëm nag nijaayam bi nga xam ni kilifa la kilifa diine la imaam la mu jël cër bi joxaat ñu ko ñoo ngi koy sant te di ko gërëm waaye tamit di gërëm ay kilifaam ay soppeem ay nawleem ñi fi teew ñëpp am na ci ñoo xam ni sax ñoo ngi woon dem naan seen ay garab waaye ñu toog fii ñu ñaan ndax nit nag bu nekkee téeméeri nit ñu di ca segg ba mu nekk ñaar fukki nit ak juróom mu jël la am la fu la teg dugal la ci këram doon sa kilifa teg ci président Macky sàll boole leen ca biir kër ga nga ama fa soxna teewul mu nekk sa kilifa nekkaat sa goro nekkaat sa pap ngay tudd mu yëkkati am maanaa yëkkati ko jox la ko Pape Moussa tey bi ma ñëwee ci suba dani ma kii mooy sama papa la dootul sama patron ndax nit nag bu la dee jàngal métier ba pare may la soxna ngay tudd mu ñëw te tey jii mi ngi waroon a dem ca Saly am na ay kilifa yu bari yu ko fay xaar waaye ngir Pape Moussa mii na day tàmbali ci gërëm ay waajuram nee na ñi ngi nee toog surtout nag ñun yàlla danoo jaboto ay jigéen nee na kii toog rakki papaama nee na mi ngi koy gërëm di ko sant ay ndijaay ma ngi nii toog ceex tonto Mout Sow taaw suma ñoom yaayam badaraak ak cheikh ñi ngi fi nee na nee na ñeneen sama ndijaay ñeneen ñaa ngi ñëw waaye nee na day bérél nuyoo spécial nee na ndijaayam kaaw na Jugo ba lew la nesen nee na kin naa Mamadou Yaya Ba moo ko fekk en 2011 nee na muy jiite ay association mu ne ko kaay duggkat ci APR ñuy jàppale président Macky Sall nee campagne Obama indi ko Sénégal. nee na muy doomi Sénégal ñu jël ko indi ko Sénégal ni ko kaay liggéeyal sa réew. nee na xale yooyu ñu jëloon ma téeméer. président Macky Sall jël leen teg leen ci loxoom. nee na moom mii. nee na muy seggkat ba mu des ñaar fukki ndaw ak juróom. nee na ñaar fukki ndaw yooyu ak juróom des. nee na yàlla dogal kat Pape Moussa moom mu bokk ci. 2014 à nos jours. nee 2018 à nos jours. mu yir ma mu yër ko. yir ko. mu yar ko. jàngal ko. tette ko. dem ba ba moo ma bàyyiloo dem ba nga xam ne da daan def yëfi xolay góor yooyu moo ko bàyyiloo. wan wan ko yoon. teg ci may ma soxna. ci kat yëkkati soxna may ko. ñu fal lu yàggul dara. nee na président fal ko lu yàggul dara. directeur général. directeur général. agence sénégalaise de la reforestation. agence de la reforestation. et de la grande muraille verte. ak de la grande làkk boobu da italien la xanaa. nga xam na nga xam ni. bokk na ci projet phare Macky Sall ma jël nee na mu jël ko ko dénk ko ko nee na mu bokk kat ci acte yi mu njëkk a jëlaat def ko kat def Pape Moussa conseil technique am kon kii nag nee na amul fayam nee na moom ak soxnaam ñu naa ko Salimata Baayo waaye sunu doom jii nu tudd léegi. muy njëkk a def gynéco doon dem rendez-vous gynécologique. nee na ba muy dem rendez-vous gynécologique. ñu jàppoon ne góor la. ñu jàppoon kat daan góor la. moom woon sax xalaat ñun ñaar ñëpp dañoo concord dañoo amoon convergence di ne moom lañ koy tuddee na kat bi soxna si wane lor kat danoo jàpp ne woon góor la bu juddee moom lañ koy tuddee force. kooku loolu moo nekkoon suñu loolu moo nekkoon seen yéene. waaye weesuwul. nee na kat amuñu lu nu ko fayee nee na dañu koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko yàlla taxaw ko yàlla yokk ko ba mu yëg ko nee na ñu ngi koy ñaanal kat seen grand frère Mamadou Yaaya Ba nee na mu gën a yokk nee na di ko ñaanal grand frère am bii di Cheikh ak ndijaayam yàlla sàmm leen. beral nuyoo spécial. nee na di beral nuyoo spécial. nee gorom bu góor. nee na mi ngi nee toog di Yunus Sané. taxawunu. jàppalunu. nee na dina taxaw kat une minute. ci ñaari nit. nee mooy ki ko meññ. ak ki meññ soxnaam. muy yaay ma ngi ne toog di nen na saw di yaay soxna Kulu Buso nee na ay ndijaay ma ngi ñépp fii toog nee na olof Njaay day wax ni nee na olof danaa bu feccum liir neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya nee ñaar ñooñu nee na ñu yàlla dogal kat ñoom ñu jaare ci moom di dox ba gisante moo tax puisque l'amour a triomphé pour qu'au début dañ leen di jox tur bi boole leen ko ñoom ñaar nee na boole leen ko tudde leen ko seen ñaar yaay yooyu muy nen na ku di Cissé waaye mieux nee na nit kat boo koy tudde doom da nga koy tudde ci ay référence am nee na maamam bi nga xam ne kat moom la ñu tuddee yaayam muy maam nee ne nee na xam nga nag nga doon sët sa maam yar la dina la xam ni ngay waxeek ni ngay doxeek ni ngay toogeek ak fooy liggéeyee na nga fay doxale ku amoon sutura ku baax di dund ba léegi dana koy ñaanal sunu borom may ko gudd fan ba dem ba sunu doom ji ñu fiy tudd dem ba di ko muur muy sëy mu fekk nee na maamam góor gi ale sow bi tëdd ca yoof kooku ñun waa Géejawaay ñun xam nanu ko ndax jumaay Nimzaat ak àngal muus bu taxawee ku ne xam na ko ca jumaa ja Moodu Juuf loolu ku ne xam na ko kon tey nee na mi ngi sant kat sunu boroom nee na dëkkandoo yeeg imaam yeeg chef de quartier yi fi dajeeg ak fii mu dëkk lii nu ko lebal fayu leen ko moom nee na di sant kat jigéenam bi nga xam ne mooy premier njëkkeem ñu naa ko umu xayru bàyyi nee mi ngi koy seedeel ni mi ngi ñëw ci yow te du yàgg dara incha allahu taala nee na soxnaam eh eh mbooloo mi doonoo bëgg ngeen déglu Pape Moussa ku ne tudd na ko waaye nee na soxnaam bu koy tudd day jug taxaw ndax nee na soxna si jugal taxaw soxna si jugal taxaw ay waa ji bu yoboon ak sa yaay mu teel leen a contrôler bala ngeen a nef lu leer nañ laa leen waxal Pape Moussa mii ni ma ko gisee. nee na grand nee na loo gis mu yëngu lu ne ba mu jug taxaw la ko yëngale ko ëpp doole nee na bu deewoon ñëwal nii ba judduwaat nee na déglu leen bu deewoon ba judduwaat ñu laaj ko kan nga bëgg a mu ni Ina Binte Bayane Sall saane waaye tàccu la loolu waay lëngu ko lëngu ko lii mu la wax jër na lëngu dóor ko benn okola ndax li ngeen bëgg dangeen ngeen si sinap e lëngal ma ko dóoral ma ko benn si da la koy dem waay ñaar ñii nan leen berde nee na kii nee lu mu nar a wax ci moom xeeb ko nee na lu mu xalaat ci lu baax ak lu neex nee na du gis mooy sax pour qualifier ko nee na tellement ni soxna si mel nee na ni mu ko taxawoo di ko jàppale ni mu ko jàppale nee na taxawu ko ay mbokkam ay waajuram ak i xaritam nee xaritam yée ngi nii toog te xam na ni li ñuy wax dëgg la ñoo juddandoo màggandoo ca géejaway ay collègue am a ngi nee toog nee na mention spéciale grand Xafool Touré nee na mi ngi war a ñëw ci mbooloo mi waaye egseegul nee na da koy xaar ba mu ñëw nee na pour mu wax ak moom nee na Abdou Khafoor magam bi mu dëkkal moo taal otoom jëli soxnaam indi ko ba ci kër gi. jël ko ci bureau muy liggéey jox ko fa ay responsabilité nee na ku ne xam na ni Modou Diouf a ngi nii toog kon donc nee na loolu bu ko yàlla dogale nee na mënuñu ko bañ a ñàkkal seedeel ci famille yépp ndax Abdou Khafour ni mu ko taxawoo nee mi ngi ñaan mbooloo mi da ngeen a bëgg ngeen déglu Pape Moussa moo taxaw ak soxnaam di ko gërëm Pa Moussa bul jooy nee na Pape Ndiaye ngi fii muy daas ministère de la l'éducation nee na di xaritam di grand frère am nee na di rafetlu teewaayam nee na yeneen grand bi ñoom Pape Sow daaw nee na mi ngi ñaan nee na mbooloo mi fi toog ñëpp déglu leen. ñu boole ñaanal. nee na ñu ñaanal. sama soxna si. nee na moom soxnaam sii. ngir. ngir. muy yàgg rek. muy yàgg di gën a neex. di gën a neex ni ko sëñ Muntaxa waxe rek. muy gën a doxit. muy gën a gën neex. muy gën neex. nee na mi ngi koy sant min koy gërëm. nee na bu naree takk deuxième femme yàlla na naan malaajoo. Pape Moussa nee na. bu naree takk deuxième femme yàlla na naan malaajoo surveiller leen yi xanaa ñëw ñu ñëw ci kilifa gi rek mbaw ndax ginnaaw yàkkati Omar léegi Omar mooy yëkkati mbaw kaay nii ndax yow lan fi fekk te da ngay sunu grand. nee na bàyyiwu ci kenn ndax kulim juum. nee na di jox kat ku nekk ak wàccuwaayam nee na ñoom ñëpp ay xaritam lanu ay baayam lanu seeni ay yaayam lanu ñii ay magam lanu ñii ay rakkam lanu kat dañuy ànd ñoom di liggéey ensemble nee na lu rafet rek lanu seq mu nekk seen diggante donc euh, euh, pour Pape Moussa nee na Pape Moussa Cissé. ruusu ci lool ruusu ma ci. nee na ruusu kat ruusu ci kat ci li mu ànd ak moom. ci inna tamit ruusu ma Pape Moussa Cissé ñëw sama kër fekk fa inna. nee na ruusul kat Pape Moussa ñëw fekk ci inna. parce que inna sama sama sama xaritu doom lañu. nee na inna mi toog xaritu doomama. te inna ba mu dalee ñëw sama kër yàgg na. nee na ba inna dalee ñëw këram yàgg na. nag. président boole. nee na Pape Moussa Cissé bu leen président Macky Sall boole. ma gis ci moom yar. nee na mu gis ci moom ab yar. teggin. bu ànd ak teggin. Euh, jàpp ko def ko comme sama rakk. jàpp ko kat def ko comme rakkam. Euh, parce que àdduna bi tey dafa doy ku ne xam na ne àdduna bi dafa doy waar. mais Pape Moussa Cissé bokk na ci ñoo xam dogal sama biir kër. nee na Pape Moussa Cissé mii bokk na ca gën a yoo xam ni na nu ñëw ci biir këram dogal fa ndax yor na yar bi. daanaka samay doom yëpp fekk bitim réew la ngénte bitim réew la fete mais ñoom ñoo ko ngénte. nee bi mu amee soxna kat am ay tuut tànk. bitim réew la ko fekk waaye Pape Moussa moo nekk ca kër ga di dem ak a dikk ak ak doxal kon am na ci moom confiance. li ma defal Pape Moussa Cissé nag ak Ina Cissé. li mu defal Pape Moussa Cissé ak Ina Cissé. nee na du moom ngeen war a sant. ay waajuram ngeen war a sant. nee na ay seeni waajur ngeen war a sant. nee na ngeen sant Seydina Mohamed moo tax ba nu am diina bi. di sant yàlla. sant tamit président boo xam ne moom moo dogal. nee na sant kat président boo xam ne moom moo dogal. Euh, man dama nangu ndigal. nee na moom kat gone la waaye dafa nangu ndigalu kilifa. nangu kilifa. nangu ndigalu kilifa. sama kilifa moo ma dogal. nee na kilifa moo ko dogal. moo ma jox kàddu. moo ko jox kàddu. jox ma responsabilité. jox ko responsabilité. ma ay moyen jox ko ay moyens. pour ma jàppale gone yi. pour mu jàppale gone yi Sénégal. donc li ma def si ñoom. li mu def ci ñoom. ci président la. ci président la. parce que bu ko neexoon ñu arrêté ko léegi. nee na bu ko neexoon kat président arrêté ko léegi. donc euh, nañu sant président gërëm ko. nee na nañu sant kat président gërëm ko ak soxnaam. Euh, lu si des nag. nee na li ci des. Euh, toujours comme ni ma koy waxee rek. nee na toujours kat kàddu gi muy yëkkati ni mu koy waxee. lépp lu nit def ci àdduna. nee na lépp lu nit di def ci àdduna. mu doon lu baax mu doon lu bon. mu lu baax wala lu bon. boppam la ko def. la ko def. te boppam la ko def. te boppam la ko defal. donc Pape musa nee na Pape Moussa. Euh, daan naa la wax ne que sëy. nee na daan na yëkkati kàddu di la wax ni la sëy. boo xasee ba takk jabar. boo xasee ba am soxna. li nga amuloon li nga amoon moo ko moom. li nga amoon moo ko moom. lu mu am moo ko moom. lu mu am moo ko moom. li ngeen am moo ko moom. lu ngeen am moo ko moom. bu fekkee yaa ngi koy doxalee noonu rek. bu fekkee yaa ngi koy doxalee noonu. coow du jub coow du jub. kon jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf mi ngi gërëm waajuri Pam Moussa yim fi fekk ak imaam yi nga xam ni nii nu ko doxale dafa rafet ndax lu ñetti imaam yu fi baax yéwén yëkkati ma jox ma kàddu te bu ko neexoon du ko def dañuy sant yàlla rek julli ci te ci biir kàddu wi nee na dafa bëggoon yow nga teew du yaaya ba li Moussa wax Omar wax ko ñoom ñëpp bi ñu rootee ba pare li ñu def mooy sa kaw lañ ko sotti ndax nag ab tegale bu guddee te daanuwul ba jiitoo jub su fekkonte ni yow mi nekk ci kanam danga ngaa dëngal wala nga jubadil fii Géejawaay àgg du fa àgg Mamadou Yaaya Ba ñun communicateur de la banlieue suñu amee doole yow la bu nu amee succès yow la bu nu amee ndam yow la ndax président Macky Sall ak monsieur le maire Alioune Sall mi la jël teg suñu kanam kon Seydina Omar Seydina Omar lii mooy wax ci yàlla na nga am jàmm ñun nag nee nañu géwal baaxul waaye kun fi bàyyi baaxul kun fi bàyyi baaxoo yàlla na nga am jàmm jërëjëf kontaan naa تنغو المفازيد كلها وتنخو لنا خيرات من خير منجدي zababtu li xayri llahi ma lam yaliq bi wa zaba li xayri dahra mawlay xusadi ilallahi bil muxtaari wajjatu ma bi خويت سلالا سافيا خير موردي إلى الله بالمختار وجدت ما به حويت سلالا سافيا خير موردي إلى الله بالمختار وجهت ما به حويت سلالا سافيا خير موردي إلى الله بالمختار وجهت ما به خويت سلالا سافيا خير موردي استبزار في الحسنات سيدة للمحسنات مريم فوقت الموقنات إن الذي لم أغلى القفز بزار بالحسنات سيدة للمحسنات مريم فوقت الموقنات إن الذي أغلى القفز بزار بالحسنات سيدة العيل الموزنة مريم فوت الموغنات الذي أغلال بكل باقون ولكي خار فلم خير رسول الاندخار وبك فاز صدقار ولم يكن أغلال لم يضل المؤمنين كونك بالمسلمين يا أم خير المحسنين مصومة من أغلى القى يقولني لما بكي ما أنكي فعلا خابكي فزي ببير المودكي كل تغيير أغلى القى وجدك الله يوم بما يديم لي بما وإذا بما من خير غاز أولين فأنس لالة الكرام ما منع وكل غرام وأنت سالة الاغترام بلند أنت أغلين فشكر ربنا الكريم سنك سهرا لا يريم ابن كنان mi xubbaki reetanu di mu xurbaki min rabbi zaatil xubbaki mutil huda wax leen ko billaay si kun fa yakoon talabtu min laaw an yakoon لكن ساغا من زاركون وندي بمن أمرانك يا عمر المالكي يا مجال الالكي ابنك لا بآلك إن العلي مما أولانك بارك بالله ذو الجلال وابنك لنا في دلال ما يغالي دول خلال غاريين مما أغلق هدي هدي قوزي بلا ردم كما تقوزي لا إن الكريم من غابلا من جهدك المستبرك أمكن فايلي أم صلو سوكو أمي أم كسولو سوكو أم الله أم صلو كبير ولا يمبك na am kilifa yi li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéerul yomb ina am kilifa yi li am solo soo kilifa am na solo am kilifa yi li am solo soo kilifa am na solo am kilifa yi